asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad mbokk ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko di dellu siwaat ak yéen ci jataay weeru koor di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen yàlla dëppale ñoo ko layatul qadr ba tey mbokk yi ñu ngi ci guddi yi nga xamante ni mooy guddik fukki fan yu mujj yi ci weeru koor di guddi yi nga xamante ni ñoo gën ci guddi yàlla sàkk ci at mi waaye tey gii mbokk yi muy guddig ajjuma xam ngeen ni comme ni ko boroom xam-xami leeralee mooy yonente bi alayhi salaam sax moo ko njëkk a wax mooy na ngeen kar li nga xamante ni mooy laylatul qadr ci fukki fan yu mujj yi waaye ci biir fukki fan yu mujj yooyu na ngeen ko gën a kar ci li nga xamante ni mooy fan yu tool fan yu tool yi mooy le 21 guddig le 21 guddig le 23 guddig vingt 25 guddig le 27 ak guddig le 29 tey jii ne dafa bokk ci fan yu tool yi te alhamdulilah ren ji daanaka ñëpp a woorandoo loolu tamit sant yàlla la kon laylatul xadr nañ ko kar ci fukki fan yu mujj yi waaye rawatina ci li nga xamante mooy fan yu tool yi tey jii dafa bokk ci fan yu tool yi waaye li ci gën a yéeme tey jii dafa tombante guddig ajjuma te ibnu rajab day wax ni fan yu tool yi bu fekkee ni dafa tombante guddik ajjuma loolu bokk na ci guddi yi ñu gën a yaakaar li nga xamante ni mooy laylatul qadr moo tax kenn ku nekk na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax guddik tey ji kenn ku nekk na ci bàyyi xel amaana mu nekk laylatul qadr yàlla doo nga xam waaye nag am nañ ci yaakaar ndax guddi gu tool la waaye tamit li nga xamante ni mooy guddik ajjuma la kon lu jar bàyyi xel kon nang ci wax dëgg yàlla takkaat sa ndigg bu baax a baax góorgóorlu ci sori lépp loo xam daf lay occupé loo ci li nga xamante ni mooy guddi googu bu ko defee nga ciy baril comme niñ ko dugalee mooy allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni lii moo gën ci lu ñuy wax moo tax xadis bi ñu la dugal xadis yaa Aïcha la moo laaj yonente bi alayhi ni ko in waafaqtu laylatul qadr bu fekkee tombente naag laylatul xadr lan moo gën ci lu may wax mu ni ko taqu lii nded la nga war a wax mooy allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni kon nag allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni ndax mooy guddi goo xamante ne comme niñ ko junjee woon fiiha yufraqu kullu amrin hakim li war a am ci année bi yëpp ci lañ koy faram fàcce léegi nag yow boo ñaanee yàlla mu jéggal la defal la tawfiq kon yow jàppal ni laylatul qadr bi ba bële di ñëw année bële ci lépp ci yiw ngay nekk ndax yàlla defal na li nga xamante mooy alafu kon mbokk yi ñu gën a góorgóorlu waaye tamit ci liñ war a gën a góorgóorlu xam ngeen ni bisu àjjuma ñu bari tey dañ cee sàggan dañ war ko fattali mooy julli ci sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam allahuma salli wa sallim ala hada annabi al karim kon kooku mooy sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam ndax ab ndénkaane la tey boo tey par exemple li gën a yéeme mooy wax dëgg yàlla nit ñi fu ñu bàyyee sunna rek ab bi daa ñëw na fa tey gis ci sociaux yi foo gis ci plateforme juma mubaarak juma mubaarak juma mubaarak te loolu amul cosaan juma mubaarak amul cosaan ci diine naam ànd ak loolu tey ñun ñëpp ñu koy tasaare te pourtant leen yonent bi salaam sant dénk leen ko mooy akthiru la wa akthiru na ngeen di bari loo di julli ci man allahu akbar waaw yonent bi salaam mi nga xam dafa am aq ci ñun wax dëgg yàlla ni akthiru bari leen lool leen julli ci man parce que fa inna salatakum maarudatun alayya nee na julli ngeen di julli ci man dañ ma koy gaaral waaye mbokk mi xoolal comme ni ko benn boroom di waxee imagineel yow ñuy gaaral li nga xamante ni mooy julli ci saydina muhammad alayhi salaam di ko gaaral julli xeet bi ñu koy gaaral saydina muhammad alayhi salaam te yow bokkoo ci kon yow ban position nga war a taxawee kon nañu bari lu ñu julli ci saydina muhammad alayhi salaam ndax dañ ko koy gaaral kon fa ak firu la wax kon ndénkaanu yonent bi alayhi nga xamante ni ndénkaane bu am solo la jullit ci la war a xir di bari lu muy julli ci saydina muhammad alayhi salatu wasalam ci bisub ajjuma waaye ay juma mubaarak ak ay yeen yoo xamante ni amul cosaan ci diine tey nit ñi yooyu lañ jël wax dëggal di ko partagé di ko wasaare ndax fu ñu reyee sunna rek dugal nañ fa li nga xamante ni mooy mooy benn mooy benn bidaa te bokk na ci asbaab yi tax ñu nangu ñaan mooy balaa ngaa ñaan nga jiital julli ci saydina muhammad alayhi salatu wasalam kon loolu doy na sëkkëre ni yàlla moo ko njëkk a digle moom ko njëkk a def inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi kon nag yaa ayyuha alladina amanu même yàlla bu ko digle woon sax dooyeen sëkk rek mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluun moom yàlla ko yonentam ak ak malaaka yi dañuy julli ci sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam waaye dafa ni yaa ayyuha alladina amanu yéen way gëm ñi la woo moo tax bokk na ci mandarga ngëm yàlla mooy ngay bari li ngay julli ci yonente bi alayhi salatu wasalam inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahuma salli wa sallim ala hada nabi karim kon mbokk yi mi ngi noonu nañ gën a góorgóorlu rawatina ci guddi yi nga xamante ne guddi tool la waaye rawatina guddi gi nga xam dafa dajanteeg tombenteeg guddi ajjuma nañ ci góorgóorlu nañ ko waxee woon nag la ñuy fàttali fa la ñuy jeexale mooy ñu bëri dañoo jàpp ni moom yiw dañ ko ubbi ba lépp loo xamante ne rek laytu loo neex nga def ci anka yiw lu baax la lu am solo mboolem façon yiw mais yi nga xamante ni wax dëgg-dëgg moo tax ñu naan ci guddi laytu xadr mooy bari looy julli bari looy jàngal xuraan bari looy ñaan bari looy sabbal kon lii moo jullit ci la war a a xër war cee gën a góorgóorlu am na yu baax yi ngay def yëpp wax dëgg yàlla yu baax la waaye dafa mel ni nag boo bàyyee yële concentré wu ci lii da ngaa bàyyi loo xamante ni am na lu ko gën kon yàlla na yàlla dëppale leen xadr wallahu taala ala wa bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko kon ñu dellu siwaat ak yéen ci jotaay yi ñu tuddee ayatun muxtaara muy ay ayat yu ñu tànn ci waxu borom bi subhaanahu wa taala ngir indi ci ay leeral tey aaya bi mbokk mi dugal mooy aaya bi nekk ci suratul maida aaya 39 fanweer juróom-ñeent yàlla fi muy waxee ni fa man taaba min bacdi zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatuubu alayhi inna allaha gafur rahim yàlla ñu yàlla jéggal aaya bi mbokk yi d'une manière générale mi ngi wax ci li nga xamante ni mooy tuub nit ku def naka sudul noonu doon des aaya bi pour nga dégg ko dëgg faaw nga jàng bi ko jiitu parce que mi ngi wax ci sàcc dinañ ci ñëw mais aaya bi li muy wax kon mooy képp koo xamante ni tuub na ginnaawam defee naka sudul noonu d'une manière générale yàlla day nangu tuubam bu fekkee tuub nga jaar na fa mu war a jaar nekk lu sell tuub nag dafa am ay charte dañ ci ñëw kon def ku def naka sudul noonu na fii ci aaya bi min baadi zulmihi mooy ku tooñ li ko jiitu faaw nga jàng ko pour nga xam aaya bi ci lan lay wax parce que li ko jiitu mooy wassaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma sàcc bu góor ak bu jigéen yàlla nee nañu dagg seen loxo jazaan bima kasaba nakaalan min allah loolu nag ak mbugal gu leen yàlla teg la mu nekk seen pay mooy ñu teg leen ab daan teg leen ab atte te mooy ñu dagg kenn ku ci nekk ñoom sa loxo ndeyjoor moo xam bu góor la moo xam jigéen ndax sàcc moom sàcc la tudd dafa xaram ko te ci bàkkaar yu mag la bokk kon aaya boobu bi muy jeex nag la borom bi ni nag fa man taaba min baadi zulmihi mooy ginnaaw kon ki nga xamante ne dafa sàccoon ginnaaw bi mu tuub kooku nag laa shakka ni bu fekkee ni tuubam googu jaar na ko fi mu war a jaar yàlla dina ko jéggal ay bàkkaaram waaye nag nañ fàttaliku ni benn mbir bu am solo mooy lépp loo mën mënti def même bu fekkee ni bàkkaar waaye dafa aju ci àqu jàmbur pour tuub ga mën a mat faw tamit nga delloo ak jàmbur boobu waaw lu jar bàyyi xel la moo tax aay bi ci loolu lay wax moo tax wa aslaha gi li muy tekki mooy nga yëwanal lan ngay yëwanal mooy say jëf bokk na ci yëwanal say jëf bu fekkee alal ja sàccoon nga delloo ki nga xamante ni mooy borom mais tuub sa digganteeg borom sa borom mu jéggal la loolu tettaliwul nu mukk alal ja nga sàccoon daf lay dagan déedéet da nga koy delloo de te dërëm boo jëlta te moomoo ko ëllëg yomal xiyaam ko delloo te foofu nag xam ngeen ni amul xarit amul mbokk amul dara moo tax yonent bi noonu man kaana indahu mazlama li axihi falyataxallal képp koo xamante ni da nga yoreel sa mbokk dara walla nga tooñ ko nee na lan nee na fexe ba faxas loolu laataa bis di ñëw boo xamante ne yawmun laa bay'un fihi wala xulla bis boo xamante ne amul jënd ak jaay ah amul bépp benn daraja boo fay am ba mën a jënd lu baax waaw wala nga déggaasee lu bon amut wala xulla bis la boo xamante ne amul xaritoo xam ngeen ne yawmal qiyaam wax dëgg yàlla bis la boo xamante ne comme ni ko yàlla waxee doon na sëkk yawma yafirru al mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni bis boobu kenn ku nekk am nga la doy yàlla mu ne yaay day daw doom yawma yafirru l-mar'u min akhihi wa ummihi nit ki day daw yaayam di daw frèram di daw papam da ngay dégg yenn saa Sénégal ñaan nijaay doo nga moo dul nangam dawante parce que kenn ku nekk sa bopp nga tal kenn ku nekk sa bopp nga nooy def ba sauver li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni loolu mooy tekki li yonent wax ni ah qabla an yati yawmun la bay'un fii wala xulla kon yow mi ameel nit ki àq wax dëgg yàlla nañ ci góorgóorlu ba fexe ba set wicc ci loolu laataa bis di ñëw boo xamante ni jënd ak am fa xaritu fa la fay am bis boobu lenn la mooy jël say tuyaaba <laughs> subhanallah jox ko ko jël ay bakkaaram jox la mbokk yi loolu moo gën a metti nekku ci àdduna di sonn di jëf te yàlla tax di xar sa tànk tubay di jihaad ci yoonu yàlla ëllëg yowmal xiyaam jël sa yu baax yëpp jox ko nit jël yu bonoom jox la loolu fan nga jëm yàlla nañ ci yàlla musal kon yàlla mu ni faman taaba ku tuub te yàlla dafa bëgg ñuy tuub bal dafa bokk ci ñi nga xamante ne yàlla daf leen defal tawfiq mooy ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla saa yu ñu wax dëgg yàlla defee naka sul noonu rek yàlla moo leen defal tawfiq ñu tuub directement dellu ci yàlla inna alladina taqaw ida massahum taifum min alcheytaani tadakkaru gis nga dañuy fàttali automatiquement walladina ida ida faalu faaxishatan aw dalamu anfusahum dakaru llah gis nga automatiquement fastaghfaru li dhunubihim allahu akbar moo tax bokk na ci jaam bi xéewal gi ko yàlla defal mooy mu def bàkkaar ba pare reconnaître ni moom dafa def bakkaar xelam automatiquement mu dellu ci mu tuub dellu ci yàlla ndax nag ñëpp ay juum amul kenn koo xamante ne da ah parfait mat sëkk amut yonente mu ni kullu bani aadama xata wa ay xata'ina tawaabuun ñëpp ay juum da ngay déggeen saa ñu nit du juum moom lu mu wax dëgg la ñëpp ay juum laa wax ñëpp yàlla dong moo dul juum jalla man laa yuxti min ay juum kullu bani aadama xataa ñëpp ay jum ñëpp ñëpp a ci dugg yonte mun kullu la wax ñëpp a ci dugg waaw wa xayru xataayina tawaabuun ñi gën nag ci ñuy juum mooy ñi xam buñ juumee wax dëgg yàlla wàccee seen bopp reconnaître li nga xamante ne mooy bàkkaar ba ñu def dellu ci yàlla tuub jéggalu bu fekkee fañ ko defee woon foofu mbooloo la nga xamante ne réeraange gu bari mën na fa tasaaro ñu dellu foofu deno déclaré waat nii liñ defoon kan njuumte la dara nekku jëlee gën a yëkkati rek mais na ñoo xamante ni rëy moo leen tax wax dëgg yàlla du ñu dellu seen borom du ñu tuub kon mbokk yàlla mu ni faman taaba min baadi zulmihi wa aslah nit ki bu tuubee ginnaaw ba mu tooñee bi wax nañ la pour nga dégg ko faaw nga dem ci li ko jiite mooy wa saariqu wa saariqatu kon yàlla miy wax fii ci ñi nga xam ñoo ñi sàcc kon ko sàcc dañuy dagg loxoom waaye nag bu tuubee ñu dégg ñu yàlla jéggal ko ay bàkkaaram bokk na ci tuub googu nag ak yéwénal gi muy def jëfam mooy wa aslaxa mooy mu delloo alal jamu sàccoon delloo ko boroom kooku fa inna allaha yatuubu alayhi yàlla dina ko jéggal li nga xamante ne mooy bàkkaar inna allaha moom borom bi xafuur aji jéggalaa kon la rahimun aji yërëmaa kon la kon yàlla day jéggale di baale moo tax sax wax dëgg yàlla ñaan gi gën ci gi ñuy ñaan ci li nga xamante ne mooy guddig laytu xadr bu ñu dajeeg moom mooy allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yàlla da ngaa bëgg da yow aji baale nga danga nga bëgg kuy baale kon nag nag ma jéggal kon mbokk yi nañu tuub ñun ñëpp dellu ci borom bi subhaanahu wa taala suñu bàkkaar bari na lool ndax yàlla dafa bëgg ñuy tuub wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laallakum laallakum tuflixuun kon euh, foofu nag bàkkaar nag ñaar la bàkkaar mag ak bakkaar bu ndaw bàkkaar mag bokk na ci mooy sàcc mooy bépp bakkaar boo xamante ni daan daf ci am wala rëbb ñëw ci wala ñu tudd ci safara wala ñu nit teg nañ ci ab daan fii ci àdduna loolu mooy bakkaar mag bakkaar mag nag faw nit ki tuub ko bakkaar bu ndaw nag yu baax yi ngay def moo koy far julli juróom yi ngay julli ajjuma ba ajjuma ah ak yu baax yi ngay def yooyu ñooy far bakkaar yu ndaw yi amma bakkaar mag nag faw nit ki tuub ko kon lu jar a xàmmee la yàlla ñu defal tawfiq hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh